al madina travel salum jidda sen info international ak tarixa tijaniya in america si njiital suñu imam Mouhamed Muntaha Sakho ñoo leen di may émission bu mag bii di seen bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim bokk yu tedd yi suñu jotaayu tey dañ koy ubbee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ngir tiis wi nga xam ne <clears throat> moo wàcc tey ci suñu kaw wàcc ci xeetu lislaam wàcc ci humanité muy génn àdduna suñu mbokk di wëllëre di royukaay di xarit di alxaaji siidi Lamin Niass <coughs> am sama benn mbokk toujours bu ñuy waxtaan ma ne siidi Sidi Lamin mën nga ko bëgg comme mën nga ko bañ a bëgg mais mënul la bañ a intéressé noonu la ko yàlla bindee woon am na ku dégg mu décrit ko ne il était eh, quelqu'un de de détonnant waaw eh, te ñaar yëpp dëgg la waaw ñun na xam nañ ko fekk xale yu tuuti lañu bi muy tàmbali émission diine ak jamono booba rajo bi maw fi nekkoon ñoom alhaji abdoulaye lam ñoom reen mari fay ñoom ustaz eh, naka la tuddati babacar ñang eh, ñoom alhaji hasan gueye booba ñun ñii ñoo doon sponsoriser émission ba euh, ay at ndax comme ñun dañu yore business bu nga xam ne yëfu diine la lay lay lay jaay muy Saalum jëdd ñoo njëkk a sponsorisé ci li xam émission boobu pendant des années. Euh, Sidi lamin royukaay la ci anam yu bare bare bare bu dee ci wàllu bind la bu dee ci wàllu wax la bu dee it ci wàllu liggéey ci anam yu faccanti ko rawatina nag ci anam gi gën a jafe muy anam goo xam ne dangay eh, am lu ñoo tuddee libre pensée régime bu ñëw dina am moom problème te la ko ko yóbboo rek mooy dafa gëmoon li mu nekk nitu principe la woon euh, dund gi gàtt na waaye gudd na wax naa ak président Cheikh am ma ne ko benn sikk la am mooy gàtt fan moom moom Sidi Lamine euh, yal na yàlla yéege ko ci euh, maqaama ñamu gënoon a fonk muy yàlla ko maanaam muy yonentu yàlla Muhammad ak eh, ay ñooñam alayhi salaatu wassalaam ak i saxaabaam ak Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiallahu anhu fonk Makka ak Madinaam ñëpp xam nañ ko wante man néew na lu ma demee Faas te waxuñu ne ma la eh, Lamine dikk na fi maa ngi koy wax Sëriñ Amir tey néew na lu ma demee Fass te waxuñu ma ne Sidi Lamine bi fi joge yàggul wax nañ ma sax ne balaa mu faatu fani gàmm gi ma nga woon Fass yal na ko yàlla yéegal ci barsaxu Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiallahu anhu ñu koy jale mbokk yëpp tabarakallahu defe naa fii ci Amérique dinañ ko defal ñaan àjjuma ji incha allahu tabaraka wa taala yàlla na ko fa mu jëm gënal fi mu jógee <coughs> ci barke yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu mel ni <clears throat> démb bi ñuy jàng ci mbiru sang jàngoon nañu fukki chart ak benn yi malik yetu tudd ne mooy daje ci wala ñooy daje ci sang pour ñu mën ca masax na nekk der na laab nañ ko ñaw na sutural tànk bi ba ci dojoor yi na nekk loo xam ne mën nañ mën na mënees na cee doxee euh, dara bu mu dox digganteem ak euh, maanaam bu mu am diggale bu nekk ci kawam ba tere ñu mën caa masaxa kii ñuy mas ki koy masaxa it na ko sol fekk mu ngi ànd ak laab na laab ga nekk laabuk ndox na laab ga mat na ko sol ngir soxla waaye bu mu nekk ngir noos bum ko solit ci jamono joo xam ne sol ga mooy la niki ku nekk ci aj e, charte yooyu nag <clears throat> bu ñu ko jëlee te xam nañ ne <clears throat> sang dëppoon nañ ci mashruciyatoom waaye dafa am lu ñuy tuddee jawrab eh, mën nañ ko tuddee ci wolof lu ñoo tuddee kawas boroom xam-xam yi yéegal ko ci waaye ban kawas ak loolu ban problème lay jur maanaa bu ñu xoolee ci maalikiyatu dañuy wax ne fokk mu nekk der bu dee sax jawrab la kon xanaa dafa am jawrab boo xam ne dafay am der ñu nekk der ba la féetee suuf ak la féetee kaw waaye bu ñu xoolee ci mawaahibul jalil définition bi mu def jawrab mooy lu niroog sang te ñu defaree ko coton wala lu mel ni coton ci bii jamono <clears throat> dinañ defaree jawrab lu ñuy tuddee nilon euh, te boroom xam-xam yi dañ daan wax ni diggante jawrab ak euh, sang li leen wutale bii dañ ko defaree suuf muy lin bi ñu defee ko koton walla lu ko niru euh, xam na bu ñu xoolee xadis ndax mën nañu masxa ci jawrab xadis ba ca wàcci boroom xam-xamu xadis yi jiitoo dañ koo dañ koo dañ koo lompañal dañu gis ne xadis bu faible la mooy xadis ba ñu solo ci Mughira ونتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين yonentu jàpp na masaxa ci ay jawrabam ak ci ay ay dàllam abu daawud ci sunanam nee na ibnu mahdi ka daanul waxtaane xadis bi ndax nee na liñ xam jëlee ko ci mugira mooy yonent bi masaana ci ay sang waaye duhut yonent bi masaana ci ay kawas ak i dàll ali ibnul madini nee na mugira ci masxa ahlu madina ak ahlu kuufa ahlu basra ñëpp ñëpp soloon nañ ko waaye huzayl ibnu shurahbil bi mu ko solee jëlee ci mugira dafa wuuteeg ko soloo jëlee ci Mughira ndax ñoom sang lañ wax moom mu wax jawrab sang Xufayni lañ wax moom mu wax jawrabayni eh, Mufaddal ibnu Ghassan nee na laaj naa Yaxya ibna Ma'in xadis ji mu ne annaasu kulluhum yarawnahu ala alxufayni gayr abi qays bokk na ci ñi lompañal xadis bi Sufyaanu Thawri limaamu ahmad ak yahya ibnu ma'in muslim euh, imaam muslim annasaa'i ak al uqayli ak addaaru qutni ak euh, al bayhaqi daaru qutni ak bayhaqi euh, ñii ni imaam nawawi commenté ne ñoom ñooy alaamu aimati al xadis donte uh, imam tirmidi boole na ko ci def na ko xadi xadisan xasanan imam tirmidi du tolloo kenn ci ñii ñu tudd muy sufyan thawri ak imam ahmad ak ibnu main ak muslim ak nasai bi tiwaaqi ahlil maarifati loolu la borom uh, majmuu charx al muhadab wax kon mënuñoo sukkandiku ci xadis pour mën a masaa ci kawas ndax bu ñu xoolee ñi jiitu dañoo lompañal xadis bi te ñu ko wéral ci seen ginnaaw ci ñu mujj ñi waxuñu lu ñu njëkk ña waxut dañoo lëngal ñu lu ñu njëkk ña jàpp ne lu ñu lëng la wante mën nañoo masxa ci kawas ngir ne solo nañ jëlee ci ay saxaaba ñoo xam ne daan nañ masxa ci ay kawas ibnul mundir tudd na juróom-ñeenti saxaaba ali ibn abi talib ammar ibn yasir abi mas'ud anas ibn malik ibn umar bara ibn azib bilal abu umamat sahl ibn saad eh, ibnul qayim nee abu daawud dolli na ci abu umamata amr ibn xurayth amr eh, umar Eh, ibn abbas mu ne fukki ak saxaaba ak ñett kon solo nañ ci ñoom ne daan nañ eh, masxa eh, sang maanaam masxa kawas daan nañ masxa kawas kon li ñuy sukkandikoo ne mën nañoo masa ci kawas du nekk xadis ja waaye jëfi saxaaba yi lay nekk ibnu qadaam ibnu qudamata na saxaaba yi radiallahu anhum masaa nañ ci seeni jawaarib muy ay kawas te jisuñ ku ca wuteeg ñoom ci seen jamono mu nekkoon mën nañ ko jàppee ijmaa te it eh, xam nañ ne soxla si aji masxaa di masaa ci kaw sangam moo tax aji masaa di masaa ci ay kawaasam kon nag bu fekkee ne ñoo yem ci lu tax ak ci soxla waruñ leen a tàqale loolu la borom majmuul fatawa euh, wax léegi nag bu fekkee ne sax na ne mën nañoo masxa ci kawas ban kawas lañu mën a masxa ndax ñun kawas yi ñuy sol nii yu woyof yi mën na si ne cee masxa wala kawas yi ñu mën a masxa dafa am melo dafa am ay melo yum war a melo bu ko meloow duñ ca mën a masxa lu yooyu insha allahu euh, euh, mbir la yu nga xam ne yu jara leeral la buñ ca bëggee am lu ñu leer nag ñu joxante rendez-vous suba ak jàmm incha allahu tabaraka wa ngir ne waxtu wi eh, mi ngi gudd si te bëgguñu tabarakallahu di guddal loolu suba ak jàmm daañu ñëw ak yéen ci melo yi nga xam ne boroom xam-xam yi ñoom lañu wax ne kawas yi ñu war a masxa noonu la mel hada wala noonu lañ mel